asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. naafila dix guddi fukkeel gi ci weeru koor sopp nañ ku ci julli ñeenti rakan ñeenti rakan rakan bu nekk nga jàng fatiha benn yoon ayatul kursi yu benn yoon inna anzalnaahu fukki yoon ak ñaar ba mu jeex des na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu ko doon jullee te des na ko bindal tuyaaba yi juróom fukki nit ci way dëggal yi ak tuyaaba yi juróom-ñaar fukki nit ci ñi dee ci jihaat te bala moo faatu dana mos lu bokk ci meññeetum ajana te des na ko rammaloo juróom-ñaar fukki nit ñoo xam ne safara yeyoon na leen mbokk yi ku ci bëgg yeneen ni leeral dangay dellu ci Xuratul Ayni bu Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke page 144